abonnez-vous ci sunu chaîne FTTV Sénégal la chaîne des patriotes saa su ne ngeen di am ay xibaar. rek waaw ndax réew mi ku xam na ne nii mu tëddee moom jóg jot na waaw nit bu fekkee da ngaa waxante woon ak moom ci fukki dem fukki at ak ba gis ne maanaam même jenn wax wala benn signal wala jenn jëf wala benn mandarga muy wane ne kii fas na ne respecté la ngeen waxante woon wanewu ko doxewu ko waxewu ko taxaw temb day jot. Mm-hmm. waaw léegi bu fekkee jàll na. ci forcing bi muy def day jàpp ne sénégalais ñoom du ñoo ñuy joxe réew du ñoo ñuy xañ kenn réew te su boobaa ñu ñàkk ne suñu kàddu suñu voix day defe ne booba doolee ko joxe day defe ne booba ay ne a takk taxaw tem loolu nag moo waral ngeen ko ñoo gis ci yooyu lañ nekk liggéey boobu rek ak ay arrestation yi du dara li tax du dara mooy leader yi ñu arrêté du problème bu ngeen fàttali ko ni ma ko daan waxee ci taarix bépp organisation bu jóg ni fekk fi organisation boo xam ne état la ñu ne organisation bii li muy doxal baaxut dafay war a jóge xam nga des saa kooku mm-hmm. moo yor gànnaay moo xaalis moo yor lépp la muy jëkk a jëfandikoo nag mooy xaalis. mooy xob mooy sëñ nit ñoom dañ dañ lay dañ lay soo bañee ñu xa ñu xàpp la soo bañee ñu xëpp la. nga nee na xupp xëpp xàpp mooy dañ lay ragal loo mbir yi tax yëfu naas. loolu ñu moytu àtte yi ngir xam ne bu lay seen kaw du baax bu defee nit ñi naan yatu buur yatu buur loolu waxi caaxaan képp la bu sottiwul nag ñu xëpp la xëpp la xaalis bu sottiwul nag dañ lay xàpp mooy rey la. léegi nag bu ngeen gisee arrestation yi mooy ñoom jaar nañ ci première mooy xupp Ousmane Sonko gi mu àndal. traité leen comme ay euh, comme ay force spéciale. traité leen comme ay rebelle. traité leen comme ay nit ñoo xam ne ay ay ay gëmuñ li ñu gëmuñ daal république bi respecté wul institution yi lañ fekk ñoom ñoo ko gën ñoo gën jëf-jëf ci tool noonu yi. ñoo xam ne boobu jàllul ndax nit ñi résisté nañ ba boobu jàllul ñu indi nag li ñuy wax euh, gis nga ko xale yi bi ñuy manifeste ñu leen daan rey. xam nga rey gi ñu leen daan rey wàññi na ndax mois de mars rey na man quatorze personnes bu dee bii ñaari nit ñoo ci deewagoon c'est-à-dire koo xam ne ñoom rey gu du itte kon léegi comme weesu nañ xupp gi ak léegi weesu nañ xàpp gi itam ak joxe alal léegi fan lañ toll mooy jéem a emprisonné nit ñi emprisonnement bii ñuy def nag du jariñ dara mu ngi faral di wax di ko waxaat mooy Seydina bi sallallahu alayhi wasallam keroog ba ko saray xaameree da ko ne da nga ànd ak man ci li may bëgg soo ko mënulee la in lam yafxal ma amruhu la gis na wala yakuna min ash-shakirin kon mooy emprise boobu lay wax dinaa la tëj ci prison bi Firawna ne nee fekkee ne bay was wax ji dinaa la tëj bu ko bokk ci minal ñi nga xam ne ay prisonniers lañu tëj la day mel nit ñi saa su ñamee sa problème rek emprisonnement lañ ci def waaye ndax Suleyxa loolu am na ci satisfaction bu mu bëggoon amu ko ci ndax Firawna ba tëj Moussa tëj ko mu jigi de waaye ndax bu ko tëjoon dana am na mu bëgg déedéet Ah, xaadimu rasulullahi ndax emprisonné wu nañ ko bañ ko fi emprisonné ndax am na ñu bari si ñoom boo lim fii ngay fanaan tëjum kaso moom yàqul dara te yàqul dara ci combat bi te soo di procent ci nga xamee ne tëjum kaso mi du dara léegi nag euh, arrestation yii xam nga fan la doon jariñee moo ñu arrêté képp koo ne jàpp nañ ne buñ bëggee faagagal Ousmane Sonko da nga taxaw te loolu maa amuñ amuñ prison yu mu sax amuñ sax personnel bu leen mën a jàpp ci ay xam ko arrestation yi gëlëm kep la jappal ne it lii fi def ci lu meuna def mo fi def comme moyen bu meuna mën a jàkkaarloo ndax dem nañ ñoom dem ba bataille médiatique sotu ñu dem ci ñoom bataille religieuse sotu ñu dem ak ñoom ci bataille et cetera loolu sotu surtout nak bataille am emprisonnement ci lañ nak mhm. bataille du sotti rek la ko jitu won na lay demee rek lepp lépp day day mujj rek wa an mansura suuran pënd bu saaro kep lay mujj mhm. waye nit ñi bëgg mu dañ ko am ndax ñun li ñu am ñoom muy seen bëgg mu yërem réew du doxal di def la leen neex lolu ñun ñun ñun ñii la doon suñu bëgg ñu dox leen ko waral ñoo xam ne bëgg ga ñu amoon jox leen ko bëgg gu ko raw tey am nañ ko jëlee ko seen loxo loxo te dinañ ko nangu rek a ko def Abdou ñëpp bañu ko defee amul ku ci am satisfaction mbir daal ñu am satisfaction ci mbir yi jël mbir teg ko ci yoon ku mel Nelson Mandela bañ ko gaa yi jëlee am prison ko trente trente ans yàq na ci exécutif dara waaye keroog day Nelson Mandela bi mu jëlee nguur ga doxal ko ay quelques années ne man damaa màggat man duma doxal état yaa ngi dégg ne jël leen ne état bi jël ñu état bi ngir yàlla ñu war koy jooy na ko jëlal état bi te mënu leen mënu duma état loolu mooy lu ñu Macky Sall mënoon a jaay mu safe suñu jaayoon ak maanoo ko jubal suñu ne état baa ngi ne ñu ne ko jëlal waaye bu ne maanaam état bi moomutu leen ko te lu ma ñax laa ci def xam ba xam moom Macky Sall moom moo moom nguur gi ba faaw da koo doon wala ko doxal te na nag du yomb arrestation yi daal maa ngi leen di xamal ne arrestation la yoo xam ni du doon lu lu xam bu koy servir bu ko jëriñ mm-hmm. dara du boo gisee vocabulaire la yu ñu fent waxoon nañ ci jamonoy maata ba nañ <coughs> ne boo yi génnoon voilà duñ booy Ousmane Sonko boo yi kii bee doxoon Covid bi ñu tëj leen loolu tax ñu génnoon ngir rek ngir rek bëgg buñ ah, doon sukkandiku ba tax ma am fitu génn mbooloo moom duñ génn ndax Ousmane Sonko doxul leen woon a génn su kenn bu ñëpp maa xalaat loolu da génn ci bàddem doo gis kenn waaye loolu nit ñi nit ñi leen di a jeexal te nit ñi lay man maa la ko wax la 30 danañ gis lu raw ñoom la gisoon ci mbooloo muy génnaat xaw nag ñi lu ñuy ñoom waaye dañ ni mbooloo mi danañ génn am bidison maay jàpp nañ mooy di yar nit ñi yar kenn ñoom fi ne amuñ benn moyen benn méthode boo xam ne maanaam mën nañu man man mën na daa tax a jotaat seen nguur suñ defaloon du ba mu benn pale fii nit ñu toll sax daal nañ te lañ fiy jóge buñ jëloon buñ jëloon lim bu toll ne bi ñu arrêté ñu rey ci lu mat fukki limam du ñi dañuy dem nit ñi nit ñi si loolu a dëpp kon loolu maa ngi leen xamal loolu du loo xam ne lu leen lu leen di apporter dara dara du leen apporter dara. jërëjëf si biir bi ñu ñëw directement rek ci avocat bi nga xam ne dolleekuwaat na ci avocat yi Ousmane Sonko yi euh, jugee bitim réew nekk français euh, te nga xam ne war na teew ci projet bi nga xam ne moom mooy moom lañ dëgmal muy le 30 bi waaye itam ñu boolewaale ci beneen question rek njëkkanteeg temps bi muy réquisition bi nga xam ne avocat yi Ousmane Sonko yi defoon nañ ko cour suprême ngir juge Mouhamed Diop bi nga xam ne moom moo war la moom moo yor euh, dossier Mame Mbaye Niang Ousmane Sonko ngir ñu ko ndax dañu ko wóolatul euh, euh, cour na loolu nga xam ne ñoom demandé woon nañ ko sa gis-gis ci avocat boobu dooleeku ak li nga xam ne moom la cour suprême def ci demande boobu lu ñu doon loolu moom da day ma koy wax moom lañ ci doon bett mooy ñu jël demande ba daal di koy accepté ne kon nañ ko fa jëlee loolu moom doon li ñu def ma ba day moom ku fa nekk di président loo bëgg lañ lay defal ñoom Macky Sall de moo ko wax moo tax ñu def li ñuy nañ koo ger te moom moo xaalis di gere kon moom xam na fi ñuy jaar di gere kon moo tax loolu bu fa jaaree ñun war nañoo xam noonu rek lay demee ndax Macky Sall la ko wax di Mm-hmm. tey jii ku dugg ci internet bi gis wax Macky Sall jooji léegi nag euh, loolu yi nga xam ne ñoom moom la mën nañu fay jëlee Mouhamed Diop boobu yi ak ku mu mën a doon ci ñoom liñ bëgg mënta ne ku leen tuuti ay juróom-benn juróom-ñaari nit mën nañu mën nañu am bés ñun Sénégalais ñoom ñu doon gor ñun ñu doon jàmm dañuy wax mënta ne képp lu ñu feex ak ñu jéem ak lu ñu bëgg ñoom nañ ko jéem du sotti tey te bu alxames sa ngoon danañ xam ne liñ bëgg amuñu ko alxames sa ngoon danañ xam ne liñ bëgg amuñu kon ñoom loolu buñ ci sonn léegi nag Euh, avocat yi ñoom bañ koy def itam xamoon nañu réquisition bi du jariñ dara ndax la ko jiitu woon Ousmane Sonko ñaata plainte la na dara ba mu koy plainte itam xamoon nañ du jur dara rek firna yoon aussi la même chose ba dugal dam ñoom ñoom gis-gis boobu la ñu amoon xamoon nañ mbir mi du leen satisfaire xamoon nañ ñee duñ def yoon